ñoo ngi leen di ziare bu baax yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan sunu site di ñu topp ci sunuy waxtaan tey jii nag ñu ngi fii ci Dakar Grand Yoff ci bis bi nga xam ne moom la Serigne Khadim Gueye di taxawal sunu maam Soxna Jaara ñu ngi toog ak Serigne Abdou Mbacké mu Serigne Cheikh Gaynde mu Serigne Mbacké Madina mi nga xam ne kenn ku nekk xam na taxawaayam bi nga xam ne moom la maamam taxawoon ci yoon di sëriñ Mbacké miin Madina di diine ak alxuraan ak saytu yoon di mbokkam di xaritam di Serigne Khadim Gueye di taxawal bisub soxna jaara bi sëñ bi ñu bëggoon ci loolu rek ay kàddu yoo xamante ni bis bii ak ab soññe ak soññe boo xam ne nii day jëm ci mbokki taalibe yi bi lii nga xam ne moom la Serigne Khadim Gueye fas yéene taxawal fas yéene cee lëggeel Serigne Touba. waaleykum salaam wa rahmatulah. di lay baax di leen dogal mu invité ñu ci ñu ñëw jóge Touba ñëw ci te lépp itam ak mbaaxam rek moo ko waral gannaaw loolu itam ñu siyaar Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér li mu yéene liggéeyal sëñ Touba lépp itam mu defe ko ni ko soobee di ko ñaanal mboolem njaboot yëpp ak yëpp di wane sunu mbégte bu baax ci bis bi ak taxawaay bi wax dëgg yàlla jaar na yoon. ñu sant bu baax itam sunu xaadim ci taxawaay dégg nañ kàddu yi fi jub yëpp lépp rafet na macha allah eh, ki nga xam ne mooy seen xaadim nag wax dëgg yi taxawalee lu mel nii tudde ko ngontum soxna jaara képp ku am lanteel itam mu woola ci nga ñëw teew ci wax dëgg yàlla loolu rafet la itam day gën a yaatal mbir mi te itam wax dëgg yàlla nit ku baax la nu yàgg itam te boobu ba léegi dara ñaawul lépp rafet na macha allah kon noo ngi sant bu baax di gërëm di ko ñaanal baax suñu ko wéral baat bi ba li nga xam ko bëggee barke borom Touba. jërëjëf mbokk yi ñu nga am mbégte bu baax ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yeneen thème bi sant Serigne Touba ñu ngi jàkkaarloo ak Serigne Ahmadou Sougou mu Serigne Mama Sougou mu Serigne Ahmadou Tasrif mu Serigne waa daan kenn ku nekk xam digganteem ak Serigne Khadim Gueye mu bàyyi item yëpp ñëw ci bis bii nga xamante ni Serigne Khadim Gueye daf ko ubbi ngir bëgg cee lëggeel soxna jaara Serigne Ahma kenn ku nekk xam na nag. gis-gisam ak taxawaayam ci maamam soxna jaara ndax maamam Cheikh Jéeri daan ak taxawaay bi nga xamante ni moom la def ci soxna jaara ñu baree bare di ko ci roy sëriñ Xaadim Gueye ñëw taxawalaat bis boo xam ne da cee fas yéenee dundal soxna jaara fii ci ndakaaru sëñ Ahmadou Sougou ban gis-gis la am ci bis bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax di leen siyaare bu baax di rafetlu bu baax a baax nag liggéeyu sëñ Xaadim Gueye bi nga xamante ne da koy soog a te jëmee ko ci soxna jaara moom de wax dëgg yàlla fay na soxna jaara maanaam li nga xamante ne soxna jaara lebal nag ko ndax ñëpp xam na ne tey soxna sëñ xaadim bu ko ñëpp xamee ginnaaw yàlla xam naa ne soxna jaara bokk na ci ndax bu ma juumut jàng bi nga xamante ne moom la way soxna jaara moom la ko àddina ñëpp gën a xamee moom la ko ñu bare bare bare bëgge ci la commencé ba macha allah kon lii mu def lu am solo la ndax soxna jaara lépp lu ko waaye defal mel na ne sëriñ Tuubaa nga ko defal te soxna jaara ñun amuñu ku moom ndax tey ki nga xamante ne moom lañ bëgg amuñu ku moom muy sëriñ Tuubaa moo ko meññ kon sëñ Xaadim lii sant nan la ci gërëm nañ la ci ne nag ñun ñi nga xamante ne ñooy njaboot sëñ Jiiri Wadaan suba ndax ku nekk xam ne sëriñ Jiiri Wadaan doomam yu jigéen yëpp soxna jaara leneen tuddee te ñëpp yëg nañ ne mel na sëriñ Jiiri moo mës a wàccub liggéey soxna jaare juga Porokhane ñëw fekk julli kon yoon la buñ déggee bisub soxna jaara ñu ne ñi ngi koy woote buñ ko woote woon ba kur kora waa waadaan dana ndax fa fekk waxuma la ak yow mi nga xamante ne nag da nga am ak kóllëre waa waadaan sunu xarit di ku baax macha allah lii daal rafetlu nañ ko kontaan nañ ci ñu ngi ñaan nag ci barkeb sëñ Tuubaa ci barkeb soxna jaara nii nga ko commencé nga dem ba màggal ko téeméeri at ci barkeb soxna jaara te incha yàlla mën ñu ngi lay ziare bu baax yaa ngi ñëw ci bis bi nga xam ne Serigne Khadim Gueye daf ko taxawal ngir fas yéene cee lëggeel soxna jaara ni mu ko baaxoo ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha ban yëg-yëg nga am ci bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, ñu bi nga xam ne mooy euh, kilifa jotaay bi waaye jaaree ko nag ci bis bi. di sant mbokk fi teew yëpp Serigne Khadim nag di gëm Soxna Jaara dafa am lu ko ci Serigne liggéey loo ndax bi mu tàmbalee liggéey bi yàgg te yaatal na ko ba mu àgg ci biir réew mi ak ci biti réew mi waaye loolu lépp rek dafay delluwaat ci Serigne Touba ndax soxna si Serigne Touba moo amoon ci moom yéene joo xam ne sañoon moom moo koy defal boppam bi mu xamee ne am na xat-xat itam. mu digaloon mboolem mag ñi nga xam ne nii toppoon nañ ko ñu xeeñtu barabu na jaara bi man mii sama maam Cheikh Moussa Dramé Saloum Daaru Pakacaar ci ñi sëñ Touba joxoon ndigal ñu feeñal barabu soxna si la wàccee fa kaamil rey fa gàtt taxawu fa bis bi ba màggalu Poroxaan gi sosu ci la bokk ak sëñ Daaru Kër Jëbu ci euh, Saloum sëñ la ba Awa Ndiaye sëñ Aliou Cheikh Daaru Wanaar ñi ngi sëñ Touba joxoon ndigal ne nañ ci yeesal barabu soxna si kon